rien à voir pour suñu gaynde bii di Iliman Ndiaye mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah Iliman Ndiaye ñoo ngi koy dal ngan di dal di côté de Marseille franchement émission bo seetaan dinañ dañuy dal Iliman Ndiaye parce que ñoom Ismaïla Sarr xam nañ ko quoi critique nañ ko mais Iliman Ndiaye xamuñu ko woon xamuñu ko woon bu baax maintenant critique yi comme tout le male kii bu jëlee allez le foncé l'équipe du soir mën nañu wax presque français de manière générale après match nul 1-1 bi joueur yëpp la ñuy wax quoi mais dañ naan recrutement bi Iliman Ndiaye baaxul Ismaïla Sarr baaxul mais Iliman Ndiaye déception lañ ci am parce que yéen ñëpp yéen ngi ñu soog a ñëw Marseille xam nga donc supporter ni woon Ndiaye Ndiaye mu ne si frère d'être mm, euh, Marseille même mii di wax ak yéen du benn du ñaar tout le temps da ngay ñuy waxtaan ma ne que maa ngi gis prestation compliqué mais dina baax quoi mu ne on continue de travail xam nga c'est mon club de cœur xam nga Mohamed t'inquiète xam nga pour mais c'est compliqué quand on on ñu ngi koy de nulle part xam ñun critique sénégalais bi ñuy am maanaam tout le temps dañ ne ah non Iliman Ndiaye def na match bu ñu waxee Iliman Ndiaye def na match tubaab bi du wax loolu de tubaab bi ñun ni ñu ñëwee ne non pourtant Iliman Ndiaye gis na de pourtant ça va de xam nga da ngay seetaan ay ral fu ñu noonu te nekk youtubeur nekk Marseillais wala keneen wala journaliste yi de manière générale ah, dara si Sénégal que ça soit en club que ça soit équipe nationale dara moo tax man souvent match doolu moon bëgg di Iliman Aliou di génne bii en équipe nationale du Sénégal doon na ko jox confiance bii dafa baax même Habib Diallo boo gisee Aliou Cissé tax mu bàyyi ko fi loolu la woon mu yéen a ngi sax titulaire boobu plutôt ñoom ak ñoom Edouard Mendy Edouard Mendy def na clichin am confiance parce que bu dugalee bii rek bu demaatee club am yàgg nañu gis loolu ci football bu demaatee sa club après da da relancer quoi Iliman Ndiaye loolu moo tax mu relancer mais man damay seetaan émission yi mais émission bu ma seetaan du ma seetaan émission xam man moom marché la afro mais du ma seetaan émission te duñ dal suñu waa ji du émission duñu wax Iliman Ndiaye ñeneen ñi ko xamante ne nag au début dañu wax ne non Iliman Ndiaye lii yëpp waxoon nañ ko daa waroon toog Sifil mais gars yi Sifil bu fa toogoon sax day sonn man daaw laa xaw a am commencement man dama bëgg mu toog Angleterre honnêtement billaay mais ba mu leen seetaan ne euh, Coupe d'Angleterre ñu mag Manchester City si laa xaw kii quoi waaj parce que boobu Iliman Ndiaye teewul bal ma xam ne bu ñu demee première ligue ak seen équipe bi tamit narut a ñu recruter te Angleterre ñëpp xam nañu première ligue saa boo nee même boo nee équipe bu ndaw da ñu ñu recruter Iliman Ndiaye lañu bëgg pour ñu def dara Angleterre day doy waar même si nag kenn naa ah, yàlla rek a xam xëy na peut être moom tamit mu doon Séville dina dina baax mais Marseille c'est c'est compliqué quoi pour man dañoo def ay erreur yu dul yu rëy rëy rëy ci ay Guendouzi ci ay Payet Milik à mois moment donné bàyyi nañ mu dem avec 616 tout ça xam war a tabaxaat leneen andi benn entraîneur xamante ne mësut a génne Europe di euh, Marcelino mësut a génne Espagne boobu plutôt mësul xam leen si yow andi que kenn xamul lu mu teg teg ñu kat kat de heures yi seen état physique baaxul chaque deuxième mi-temps dañuy sonn seen préparateur physique lépp ballon lañ ko doon def Marseille boo dee ñoom. premier mi-temps mën nañ jouer deuxième mi-temps ñëw di mu ngi fighting pour ak jox leen physiquement mu jox mais y pas style y a pas stratégie y a rien Pape Gueye ñu suspendre que de l'autre côté xam nga Rose blessé na lu yàgg Onahi day blessé dem ak ñëw affaire daal noonu Zigo défense bi day blessé su gardien bi def na fi ay erreur kër ci kër boobu léegi nag Iliman Ndiaye doon nañ ko wax caf rek tuuti tuuti mais instant yi comme que affaire c'est catastrophique faut le dire par rapport mu war a nekk du foofu

affaire résultat yi bu fekkee nekku fi dañuy jot si kaw parce que li tax Gattuso di ko parce que gëm na talent wax dëgg fi yàlla par rapport ak même Ismaïla Sarr Gattuso préfère même Ismaïla Sarr préfère Iliman Ndiaye à Ismaïla Sarr xam naa Ismaïla Sarr moom naa ko defal vidéo mais Iliman Ndiaye c'est compliqué donc il faut que mu am mentalité il faut que en jàppale ko parce que Iliman Ndiaye franchement mu mu génne ci li mu nekk parce que ay jafe-jafe la et que moom boo si bëggee jógee moom liggéey moo la koy may am mental bu baax ba ngeen si réseau yi ba xool seen i supporter li ñuy wax parce que supporter marché mooy ki lay xas tey suba moo lay tàccu donc loolu rek la c'est aussi simple que naa Sadio Mané tout depuis tout booy c'est comme ça c'est grand club équipe bu équipe supporter la loolu la donc mbokk yi li ma nekkoon vidéo bi ci commentaire yi wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis jaajëfal naa leen wax leen ba beneen sur Senfootball TV.